monsieur le maire maa ngi lay euh, dalal. asalaamaaleykum ah, soxna si. Mm-hmm. may fàttali suñu mbokk auditeurs yi ne tey ñoo ngi dalal maire Kaffrine honorable député Abdoulaye Wilane euh, ñu lay nuyu gannaaw loolu nag monsieur le maire euh, Kaffrine tey jii ñu gis ne bokk na ci diwaan yi nga xam ne coronavirus bi récemment la ci dugg gannaaw sax ñett weer ba mu ñëwee Sénégal ak léegi tey jii tenir ngeen ba tey lan moo xew gannaaw cas bi. ah ma li jàkk mooy d'abord sant yàlla. Mm-hmm. julli ci yonent bi te xam ne yàlla mooy dogal parce que duñu nekk réewu jullit waaye ci dogalu yàlla boobu itam euh, li tubaab di wax aide providentielle et cetera daf ci am. Mhm. ndax ndimbal da cay fekk loxol borom. fii ci Kaffrine bi jàngoro ji duggee Sénégal ba fi ñu toll. Mhm. li ñu mën a wax mooy gannaaw sutura suñu borom région Kaffrine population bi bi dëkk nit ñu. Ah, am dégg la waaye nit ñu wane ak nangoo topp mm-hmm. nangoo jëfe gannaaw boo xamee ne docteur yi ak kilifaay réew mi bi jàngoro ji duggee Sénégal dogal nañ lañ dogal santaane digle ñun dañoo dégg topp jëfee xam ne dafay sàkku ñaax soññ nit ñi mm-hmm. ci raxasu dandante dakkal dajaloo yi ci xew yeeg lépp mm-hmm. dañ koo jëfee ba noppi boole ci nag di takk masque di laante biir kilifa diine yi kilifa aada yi gouvernement bi ci turu gouver ci kaw jiital gouverneur ak préfet yi. Mhm. fu ne ñi mu amee ci nag ci ndakaaru mu am comité national buy xeex euh, buy gérer épidémie bi di xeex jàngoro ji. Mhm. fan la défaillance yi jógee selon vous parce que gis nañ leen ngeen teel a farlu daal di jëlandoo matuwaay mais euh, mu jékki-jékki dugg ndax euh, dafa am fi nga xam ne dangeen ngeen bàyyeeku. ah non non non non non bàyyeeku bi moom su amee. benn ci ñu war a dem dëgg dëkk bi ñaareel bay dogal yi nga xam ne nii fan yi ci gannaaw nguur gi dogal na ko. ñàkkul euh, mën na ci am wal waaye li gën ñu jaaxal ñun te tiitloo ñu mooy li tiitloo fajkat yi ci case de santé centre de santé jaar ko ci post santé ba ci hôpital ñooñu ñëpp dañu wax ne euh, matuwaay yi nga xam ne nii war nañ koo jël. ak euh, jumtukaay yi leen war a wutal pour ñuy aar seen bopp. Mhm. te sawar ci dalal jarak ji ñi feebar wala nit ku mën di doon loolu matale wut wax nañu ne depuis ñetti weer waaye man wóor na ma ni depuis le trente mars euh, avril yëkkati na suñu kàddu wax ne ci hôpital Kaffrine am nañ fa béréb bu mucc ayib bu bu jekk pour dalal lu mu néew néew ñaar fukki nit ak juróom-ñeent. bu ñu toll woon ci réanimation loolu am jël nañ ci matuwaay mhm. léegi nag gouvernement bi wax prise en charge domiciliaire wala extra hospitalière maanaam ñi feebar dañ toog seen kër bu ñuy wàllante ñu wàllante seen biir kër mhm. wala ñu dugal leen ci ay béréb yoo xam ne ay hôtel ak yooyu di de fa def te loolu day dépensé xaalis bëri ñoom docteur ñu ne loolu yëpp baax na waaye nañ fexe am ay lal respirateur am garab yu doy am mbubb yooyu di ñu ne mbubb taw wala mbubb euh, yooyu di ñu ne am lunette am gant am ay masque yoo xam ne nii danañu moytu jàngoro ji nit ku ñuy wax porteur asymptomatique wala ku ko am te feeñul mën ko wàll sage-femme bi infirmier bi waxuma la ak médecin bi wala même ñi liggéey ci hôpital loolu la ñu wax dañu wax ne gannaaw jàngoro ji ñun ñoo doon moytu jëfandikoo defee nii ñu góor am sant yàlla mosuñu ci bëri bi nii te teel nañoo wax gouvernement bi ay matuwaay yoo xam ne bu amoon teg danañ xam fu ñuy jaar ak lu ñu koy kon dañuy wax ne war nañ cee wax maa xam la ne. Mhm. du maire du député du haut conseiller du benn homme Kaffrine wala fonctionnaire buy liggéey Kaffrine te ànduloo ci li ma wax parce que man waxantuwuma ci may waxee en tant que député laay wax en tant que représentant des populations. Mhm. ñoom ñoo bëgg gouvernement bi goñ doole dalal seen xel te ni mu gën a mën a dalee seen xel mooy gannaaw ñun ñu ngi doon wane nangu ko ci moytu ak topp digal yi ak santaane léegi nag mbir mi feeñ na fii. buñ feeñu doon sax ba nga waroon a teewal fii ci Kaffrine loo xam ne comme Kaffrine dafa am corridor Dakar Bamako bu fi traversé soxal réew yu bëri fukki réew ak juróom daanaka waaye dafa digaloo ak fukki gox ak juróom ak ñett ci Gambie digaloo ak juróomi région Sénégal dañ ne Kaffrine célébé yoon la war nañ fee mën a indi loo xam ne nii bu fi newoon këtt ni jonn duñ fi jag-jagee nit ko teg ci oto ci condition yu difficile bëgg ko yóbbu Touba mbaa bëgg ko yóbbu Kaolack mbaa bëgg ko yóbbu Dakar dañ loolu lañu def leen war fekk sa tët banque ay tànkam. Mhm. te nag magum waxoon naa ko moo gën magum xamoon naa ko. xanaa da jàpp ne gouvernement bi da leen a seetaan. en tout cas bu ñu seetaan itam yéex na bala boog mu ngi sàkkante dañoo sàkkane. Mhm. ndax waaye nag loo jëmante dégg ñun suñu xalaat la ñuy wax en tant que représentant de population. Mhm. xamuñu li gouvernement bi xam yëguñu li gouvernement bi yëg xamuñu yan jafe-jafe la ñu am ci wàllu xaalis ñun bëgg li li ñu a am te yeneen dëkk di ko am wala yeneen Sénégal di ko am loolu la ñuy wax. Hmm. waaye waxuñu leneen ah, bu fekkoon te ni rek la ah ñun li ñu wax dañ ci war a këram ànd ceeg ñun fexe nag taxaw faj ko parce que ah loolu bu lay wax li nga xam ne nii moo ba jaxul wala moo baaxul mu ngi mel ni keneen wax sangul dara wala sa gémmiñ keneen na ko doon da koy wax ñun loolu la ñuy dundee loyauté rek lañ xam loyauté en tout lieu mais loyauté républicaine et patience citoyenne. Mhm. tey jii gis nañ ne euh, gouvernement justement sax moo ngi euh, ñoo ngi annoncé euh, buñ sukkandikoo ci information yi yeneen assoupli assouplissement mesure gannaaw nag yi njëkk a am ndax amoo njàkkare ci mbir moomu le li nga xam ne moo ñu intéressé mooy d'abord bu dee lépp lu jëm ci wàllu tàmbalim njàng bi ëllëg ñun en tant que maire comme ni ko sama moromu maire yëpp defee ci région bi. Mhm. bépp école bu nekk sama commune élève bu fay jàngee am nga ñetti masque loolu kenn du ko miin jàngalekat bu fi nekk dafa ne ñetti masque mhm. laaf na yi classe école bi mhm. fekkee nañu ba école yi nga xam ne dañu amoon ay problème force toilette euh, yu jegul sax dagal nañ ko ba mu mucc ayib tey mhm. am nañu it lu classe bu école bu ne dugal nañ fa ay thermoflash lu toll ci di am fukk ak juróom benn lañ ci wut te fukki école ak juróom-ñeent dong ñooy jàng ci Kaffrine primaire waaye loolu nag bu ñu ko amee dañ ci am dimbal OGIP ñun waa commune Kaffrine. Mhm. Doudou Ka à part loolu lépp loo xam ne nii ci wàllu wérgu yaram docteur yi laajoon nañu ko wala luy jëm ci seetal école yi def nañ ko. loolu ñun wuñ ko assouplissement. Mhm. dañ jàpp ne lu mënta ñàkk la ndax musiba weesuwul toog atum lëmm am réew kenn jàngut kon loolu ñun ànd nañ ci. balaa ministre bi ñëw sax lépp lu ñu waroon ci commune këy yi. Mhm. comme Boulel Niibi Kaccot Nanda Diamagaajo def nañ ko ba ci Medina Salaam. kon mhm. tey li des mooy gouvernement bi a mu indi day ñëwal day day gën neexal yëf yi dalal xel yi moo tax ñuy dànkaafu parents d'élèves yi pour que ñu xam xale yi ñu war a nekk ci kër gi. Mhm. ak bu ñu génnee di dem école nan lañu war a comporté woo bu ñu yeggee école nan lañu war a comporté woo bu ñu yeggee ko école di ñibbi seen kër nan lañu war a woo. sensibilisation prise en charge par la communauté dans la pour la communauté parce que dañu bëgg njaboot gi aaru parents d'élèves yi aaru élèves yi aaru jàngalekat yi aaru waaye itam ñu yokk ci ne ndegam doom rek nañ jur bëgg mu gën ko kenn gën a bëgg doom jàngalekat jàngalekat moo gën a bëgg sax doom ndey ak baay parce que ndey ak bàyyi xëy na bu jur doom doom dinañ ko bëgg baa ñu yéene ko liñ liñ liñ ko yéene waaye jàngalekat bi jur ko waaye li mu ko yéene moo gën li bàyyam ak ndeyam di ko yéene kon jarul jarul wala wala wala wala wala wala moytuwante. Mhm. maintenant yeneen ci des nag lu jëm ci wàllu yolomal dem rek digg bi. mu mhm. jublu mhm. wax ne gouvernement bu la yàlla jiitalee. nga am ay xibaar ak gis-gis ak ay tegtal yu borom xam-xam teg kenn mënu ko miim. jamono ju ne ak xeexoo bu ne yàlla dana sàkk borom xam-xam yoo xam ne bi. jamono ji ci wàllu feebar. docteur yi ñoo koy jiite ñi nga xam na ñu la yàlla jiital ñi liggéeyal réew yi ak gox yi dañu war a sukkandiku ci ñooñu nekk soldat yi ñooñu jël togan lu docteur yi seen xeex ak seen xalaat gis-gis ñoŋ tur njëriñ loolu moo tax dañu wax ne dogal bu ñuy jërit donte kon am nañ difficulté économique mhm. wala ak lu ñuy ragal ci wàllu sécurité wala ay euh, ñu ñuy jox di jànkuwante poste de l'ordre yi Diender Kaolack mari euh, euh, Cap Skirring yooyu warta tax gouvernement di yox yoxi bala mu jëlu gannaaw xupaate sax ci wàllu teg ko ci wàllu ngëm ak pas-pas te boo ko seetee ba ci biir wala wut ci ngëm ak pas-pas intérêt la lu warta tax gouvernement dellu gannaaw ñun nag li ñu war ci jamono ak ci suñu tàlluwaay xawaay mhm. duñ ci ragal ku ñu ci mere du ci ragal ku ñu ci xarab li ñu seet mooy sunu ak ulaay taala ak lan mooy njëriñu réew mi. kon bu ma la déggee ngay wax monsieur le maire dafa mel ni bàyyeeku bi dafa mel ni bàyyeeku bi àndu leen ci. war a nangu dama ne ku bañ war a nangu. Mhm. comme ñun mënuñoo bañ ndax faaw ñu am kilifa faaw ñu njiit ci réew mi suñu kilifa ak suñu njiit ci réew mi bu doxalee lii mooy li mu xam ne moo la jàpp ne mooy ak ulaay taalaam li gën ci réew mi. Mhm. dañuy wax samee naa d' accord euh, tey jii lu bitel école bi donte sànq junju nga ko tey jii euh, sa ville nan la taxawoo ngir préparer le deux bi lépp lu ñu fi waroon lu jiitu bés bu ay avant ñuy teg tey waxtaan bi njàng département bi mhm. ak directeur d' école yi ak waa CGE yi ci njiital gouverneur fekkee nañ CRD dem am na CDD yoo xam ne tëj lépp lu ñu IEF waxoon ne da koo soxla mhm. di ko xaar ci commune wala seetaa bi boole nañu lépp def ko ñun man bokk. sama hmm. commune boole nañu lépp def ko ñun yemuñu foofu rek sax. Hmm. askan wi sax dañoo bëgg ñu aaraw. taalibe yi ak sëriñ daara yi imaam yi yëg ñooy dem si jàkk yi ñëpp wutal nañu ay masque teg ko heure bii may toog yow mënumaay gis Kaffrine ku ne ma aw ma ko. xanaa kay sàggane naa ko wala sànni naa ko wala fóotuma ko wala ni mu ma ko takk wala mënu ma ko takk. Hmm. waaye li ñu war lañ def nañ ko lépp lu ñu doon laaj ci service d'hygiène ci wàllu ci wàllu fagaru euh, élèves yi ak matale li nga xam ne moo war a matale pour jàngukaay ak jàng bi ñëw def nañ ko ba sant yàlla bu baax a baax a baax te sax ñu continuer di moytu di takk masque di raxasu dañu continuer di dandante dañu continuer di moytu ceeb ngénte ak siyaare gàmm ak màggal ak teew. d'accord merci beaucoup honorable jërëjëf may fàttali ne ñoo ngi doon dalal Abdoulaye Wilane monsieur Wilane di euh, maire Kaffrine honorable député merci beaucoup en